doomu Babou Ngom ba Ngom waaw waaw Ay, va a coger la palma xale bi teggi ko mu tegaat beneen xale bu teggi troisième caxabal attention quatrième caxabal lii lan la nii waaw guy gi de lan la bëgg ak boo ko tegee mu sottiwul dangay bàyyi tante beneen maa la ko wax wante bëgg a forcer ak baaxul guy gi de rëf caxabal quatre fois benn jàllu ci caatu faas tëru na ko jàpp na ñaari loxoom wala jàpp na benn loxoom caatu Fass guy gi de ñoom ñaar rofoon nañu jàppante dimanche le 30 avril 2023 fii ci arène nationale journée organisée par Ndiambour production grand combat Lac Rose Queens cey Abdourahmane sama chauffeur bi <laughs> kenn du yow <laughs> maa la wax ndaanaan nga nag wala doon tooñ rek mais ndaanaan nga barki yonent ay ca Xaadim Bamba séeri kenn papay Ouzin ñaari xale yi roof na caxabal waaw waaw waaw daan na wala daanul arbitre nee na jeex na lan moo xew lan moo xew xaadim guy gi doo roof na caxabal de eh caatu faas caatu faas suruxal na ko daan na ko caatu faas suruxal na ko daan na ko. waaw ah. tey ngeen ni sa doomu ndey Quench. waaw sama rak. ah sa rak. waaw sama rak sama rak sama rak ñoom ñuy ñaari combat nag muy taxe ak Quench di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani génn ci alhamdulilah rabbil laam bi dafa jaral ndax daa am combat yu jar jar jot jàll yoo xam te ne neexul na mu demee donte nag yàlla génn nañ si jàmm parce que machine yi day gën defet san nañ bu baax waaye bii daal am na ci yaakaar bu baax. Ah, am nga si yaakaar bu baax a baax baax. ah mais ki ngay tasantal adversaire la rek Lac Rose. loolu lañ bëgg xam nga bëre kuy bëre daa neex maa bëre koo xam ne dafa am décision dafa neex waaye bëre koo xam day day suuraale rek kooku du bëre loolu du làmb làmb ñaara ko def waaye bu dee kenn rek la làmb du kenn du bëre boo ñëwee ñëpp xam la si bëre nga ñëw taxaw ne du ma kooku neexul quoi moo tax ñun li mu yor nii dañ ko bëgg na ñëw ñu reyante rek waaw yàlla ma ñu def ñu dem. waaw Tidiane yow amul kenn benn promoteur bu la seet si actuellement. du ma toog ñaari fan te promoteur woowu ma di ma wax xale. waaye naa la dañ ma fay rek. waaw jëlal rek jëlal rek mayel booy sens. non maa ngi leen di may sens mais xam nga fi mu toll la ñun utatuñ succès mais nañ ut loo xam te ne tey jii nii dina mën a xorom suñu cun loolu laay wax. daa yow saaf yow. sa wàccukaay. maa ngi lay delloo ziar tey ngeen xale bu am yoon. jël xale bu am yoon. Mhm. dara di ñaan yàlla may ñu ndam rek. waaw Lac moom ku ko xam moom xam ne doo ko tiit benn mbër rawa Lac Rose bu pare te macha allah liggéey na pare na waaw ñu ngi koy ñaanal. am na fit. waaw du dellu gi non moo ko du def loolu ko def erreur. non non loolu du dara loolu du dara ci Lac Rose. kon yaakaar nga ci bëre lay jeexee wala. mën naa jeexee ci lépp ndax lépp lañ préparé. waaw lépp lañ. waaw dellu si na waat diggante ñaxas bi ak buuba ñoom ñaar ñu ngi lewtoo amateur yi nag genre combat yi rek nañu soxla jaajëf maam Seer maa ngi lay bëggee di la ziar tey waa Bantamba TV ñoom ñaar jàppante nañ diggante ñaxas bi ak buuba ñaxas bi mi ngay door mu ngi koy jéem a plaqué ah buuba bañ na buuba war na ko ndomb buuba war na ko ndomb ah kat api ndeysaan buuba daan na ko jël bi amul benn werante buuba daan na ñaxas bi jël bi amul benn werante waaw waaw daan na ko jël ba ndeysaan supporteru Bouba yaa ngi noonu dëggal ma lii rek xoolal ma lii rek yëg di ñaanal taxe taal bi Mama Samba yàlla may ko ndam di ñaanal commerce wóor na maam Serval yàlla may ko ndam ci barke fukki pénc ak ñaari aja tamit 4 combats 4 victoires tey lamb ji abu tey lay leer tey lay leer tey lay leer wallaay lay leer rek Modou Anta coow la bari woon na ci diggante baa Jili Tarkindaa ma nga Italie toog. ndeysaan ak Aliou Dramé ma nga ca cummikaay. xoolal ma loolu. wallaay ndeysaan. xam nga lamb lu. waaw xoolal mel na ni mooy bëri. waaw lii waaw lii lii lu muy day a yàq tuuti. waay xam nga li muy yàq bari na topp yi. topp yi daal. waaw te doomu mën waaye nag dañoo sonn ci seeni i seen i seen i seen i copains. waaw dañ cee fidèle. moo tax jouru lamb sax. waaw doo leen xàmmee. dëgg la waaye Mama Lamine ni dafa niin oh. moo ñu koy fomp lool bi jëlul dagg jëlal ma lépp. jëlal lépp bi loo ci jël neex na. loo ci jël neex la. benn combat ëpp ko coow ci takkusaan gi. dëgg la. kii doomu Ibou Diouf la. waaw doomu Modou la. doomu Modou Lo kii rakku Boy Sey la. doomu Jaxaay la 1 ba 2 ba 3. xala ma loolu. Alaaji Paate. waaw Aloubay Ñaax. xale bi booy yi nga gis yëpp Jaxaay la ñu jóg. te fa ñu dëkk dafa sori. booy bi maa ko leen dafa mobilisé maa dem ba koñam fa mu dëkk dafa sori man booy bi nu muy def ba andi mbooloo mi moo ma jaaxal te mbër la nag de non ah looy wax nii da nga dof waaw ah, parce que <laughs> dof neexoon nañ de neexoon nañ de gis nga waaw waaw li gars yi doon wax naan ëppante dooleeg amu fi ah, amu fi Mama Lamine c'est bien préparé. oh dafa laqatu liggéey. dafa laqatu da koo jël ñu ne ko petit loola man. dëgg la waaw mu ne sama morom mënuma. mënuma dëgg la. sama benn morom mënuma. dëgg la piis nan teet. waaw Mama Lamine gagné ko. waaw bu doon làmb jeex na. ndeysaan arbitre mi ngi waaj a soufflé diggante Petit Lo ak Mama Lamine numéro 2 ndeysaan Mama Lamine à gauche Petit Lo à droite arbitre bi mi ngi wax ak ñoom lu règlement bi wax rek la di wax arbitre bi nag mi ngi waaj a soufflé ar mi ngi waaj a soufflé ndeysaan bu jàngi nii doomu nday mbul waaw mbul borom tubaabam suñu xarit xarit la moom <laughs> mbul moom suñu nit la moom góor tollu ni mbul eh, déedéet mais mbul arbitre mi ngi laaj ay gisem ndeysaan combat bu neex la oh ndaw combat géant loolu combat la combat géant waaw bu mbul sumee ko jaar na le kay saram sumee ko jaar na le mbul mbul ak ay mbër nañu naa waaye kii kan la waaye bamba bamba kii ma lay wan ni journaliste yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaw waaw dëgg la kii mooy bamba grand reporter Bantamba TV wax waaw te lu mu la wax téere la yal na yàlla defal ko jàmm mu danta daa am foo jëlee Gaston am foo ko yóbbu réew mi yëpp a ngi seetaan Gaston production barke bi dafa def lu am solo yal na yàlla defal la jàmm mais kii tamit dañoo bëggal ci koor gi abu man yow rek laa fa gisul te xam naa ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Ama Lamine Petit Lo ndeysaan sama doye ngi nay waaw waaw waaw sama doomu ndey ngi nii Bamba grand reporter Bantamba TV waaw waaw mais Bantamba TV ak Sénégal lépp benn la waaw waaw ñoo bokk ndeex bay comme ñu leen wax ñoo bokk fu ñuy reere ndeysaan lépp la. waaw waaw sama yëf sama yëf sama la. ndeysaan Petit Lo ngi noonu. dëgg la doom la si Modou Lo mi ngi noonu ndeysaan Petit Lo moo ne woon ginnaaw dañuy xeex eh Petit Lo na ko jàpp na ko ndeysaan ñoom ñaar eh da koo mboq mboq amul ñoom ñaar jàppante nañu Petit Lo bëgg na ko jaay doole mais jaay doole wóorul ci làmb bëgg na ko cabaxal da koy daan da koy daan. da daan Petit ko. jël bi amul benn werante doomu Modou Lo ji daan na ndeysaan waaw jaajëf Bamba ndeysaan daan na ko nga sa baay def na fi lu ci làmb gëmuñu koon Modou Lo tuddoon dem ba topp ko daal koy dab sa baay gëmuñu ko woon ci làmb def jëm fulla fayda ba nekk roi des arènes ndeysaan sa bàyyi bu kenn mësu koo dégg ci lu ñaaw kaddu gu rafet nit ku baax waaye Mama Lamine jaajëf diggante Youssou Ndour ak Balla Gaye Junior Balla Gaye Junior nag moom la ñuy wax takk seeraas moom moo féetee à gauche Youssou Ndour féetee à droite ñoom ñaar ñu ngi lewtoo takk seeraas ak Youssou Ndour ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo arbitre bi nag moo arbitré woon Eumeu Sène ak Modou Lo ndeysaan arbitre bi sifle ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Takk Seeraas ak Youssou Ndour ñoom ñaar ñu ngi lewtoo arbitre bii nag moo arbitré woon diggante Modou Lo Eumeu Sène moom mooy Malick Ngom diggante Youssou Ndour ak Takke Seras ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñi ngi lewtoo diggante Youssou Ndour ak Taka Seras ndeysaan waaw gisee Taka ak Youssou Ndour Taka ak Youssou Ndour waaw ah daal moom lu ma la mën di wax mooy ki ma ko ginnaaw mooy kan mooy Youssou Ndour mooy Taka mooy Taka bu waaw kële may nga Youssou Ndour. moo Youssou Ndour. mu ngi yàq Balla Gaye Junior. Balla Gaye Junior. moo fi tuddoon Balla Gaye ndeysaan. ndeysaan. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo. mais sa liggéey bi rafet na ci. Youssou jàpp nga. taxe ngi door ci famb yi xëcc na ko mu bañ laa ilaaha illallah Youssou Ndour taxe ngi door ci famb yi ca suuf lan mooy xew laa ilaaha illallah mbaa loolu baax na yee laa ilaaha illallah taxe daan na Youssou Ndour taxe daan na lan mooy xew lan mooy xew lan mooy xew lan mooy xew Siteu daan na Youssou Ndour daan na ko jël bu amul benn werante jël bu werante lii moo lay wan ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay daan na ko jël bu amul benn werante daan na ko jël bu amul benn werante ndeysaan xoolal ma lii rek oh ça c'est beau ndeysaan Youssou Ndour a ngi noonu ci wetu taxe seeraas ndeysaan Youssou Ndour a 30 avril 2023 ñu ngi fii ci arène nationale bésu kan la bésu Lin day sànn day sànn dimanche 30 avril 2023 fii ci arène nationale ndeysaan bésu kan la bésu àllin njàmbur production taxaw fi combat bu mag diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan arbitre bi mi ngi waaj a soufflé diggante Lac Rose ak Quench ndam li faas la jëm wala yoof si kanam dina leer ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo kii jiital pied droit kii jiital pied gauche ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ñu ngi lewtoo diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench Lac ngay dóor ñoom ñaar ñi ngay xeex xeexu mbedd ndeysaan Lac Rose Quench ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ saa ñoom ñaar ku ci nekk yëpp am nga ngemb ñoom ñaar jàppante nañ saako yu fekkul kenn diggante Lac Rose ak Quench diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ diggante Lac ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ diggante Lac Rose ak Thiès ñaar jàppante nañu Lac mu ngi dóor pour mu sigi day sànn ñoom ñaar jàppante nañ ay bii combat laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah diggante Thiès ak Lac Rose day Lac Rose moom ndengeñ bi moo ko sonal wees jàpp mu jàpp moo baax ndengeñ bi moo ko sonal diggante Lac Rose ak wees diggante Lac Rose ak wees jëm na ko fàqat mu bañ ndeysaan wees mu ngay dóor pour mu siggi ñoom ñaar jàppante nañ diggante Quench ak Lac Rose ñaar jàppante nañ diggante Lac Rose ak Quench diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan ñaari xale yi jege nañ saaku yi te saaku yi fekkwul kenn diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ

dem di faas la jëm wala yoof ci kanam dina leer léegi mu leer képp kiy bëggee sud bi rek bi Sénégal Diba mi ngi lay bëggee ànd ak kan laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah diggante Quench ak Lac Rose gërëm équipe bi yëpp ndeysaan techniciens yi fa nekk yëpp Diba ngi leen di bëggee di leen ziar diggante Lac Rose ak Quench ànd ak kan béy di la grand monteur ndeysaan ak moo am fit nangoo liggéey diggantal Lac Rose ak Quench ñoom ñaar ñëpp jege nañ saaku yi diggante Lac Rose ak Quench Lac Rose mu ngi dóor pour mu siggi Lac mu ngi dóor pour mu siggi ndeysaan parce que nengeñ bi moo ko sonal mu ngi dóor pour mu siggi ndeysaan Lac Rose mu ngi dóor Lac Rose mu ngi dóor Lac Rose mu ngi dóor ñaar jàppante nañ diggante Lac Rose jom ak condition physique mooy gagné combat bi day sànn lu ñu war a def yëpp def nañ ko moo tax entraînement rek moo wóor xoolal ma lii rek laa ilaha illallah laa ilaha illallah kees def na action Lac Rose bañ diggante kees ak Lac Rose diggante kees ak Lac Rose sànn diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench saako yu fekkwul kenn yàlla na fa fekk de diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar ñëpp sañ nañ ci saako yi diggante Lac Rose ak Quench diggante Lac Rose ak Quench ah arbitre bi àtt na combat bi arbitre bi àtt na combat bi diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench Quench jàpp na laa ilaaha illa xanaa du ko bëgg a plaqué laa ilaaha illa laa ilaaha illa laa diggante Lac Rose ak Quench diggante Lac Rose ak Quench ah Lac Rose génn na saaku yi Lac Rose génn na saaku yi ndeysaan diggante mag ak xale la boo dee xool diggante mag ak xale sax papa du ma nangu parce que magante woon ñu bëri boo dee xool Lac Rose 2013 la gëj a am ndam diggante moom Modou Anta stade Demba Diop ki nga xam moo di ko wen sa booy 2009 la gëj a laa suuf premier combat am 10 000 problème moo ko daan Lac Rose 5 minutes yu njëkk yi la moom sa lamb ji su ma doon maay moom 5 minutes moom yu njëkk yi dama koy mën a attaque jéem a daan mais instant yi ñu toll nii may wax ak yow su ma la nëbbul dëgg combat bi Lac Rose bu ko bëggee dana liggéey lu wóor. dëgg ko waaw. mais arbitre bi jox na ku nekk ñaari avertissement. avertissement bii nii sax ko Lac Rose waroon am avertissement parce que moo daw ba génnal boppam. dëgg la moo génnal boppam saako yi. laay laa xëy la ak Quench. diggante Lac Rose ak Quench Quench sànni na gauche droite diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan gëloo eh, ñoom ñaar daje nañ jàppante nañ ñoom jàppante nañ ñoom ñaar diggante Lagros ak Quench ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar jàppante nañ ah arbitre bi àtt na waat na combat bi xam naa ku nekk dafa war a noppaleeku ko une minute Quench booy moo gën a moo moo moo gën a liggéey si première mi bi ndeysaan arbitre bi waat na arbitre bi sifle na diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan Lac Rose sànni na gauche droite ndeysaan a champion liggéey lu waaw lan moo tax Lac Rose waaw jeexal ci combat bi ci cinq minutes waaw booy bi mayu ko loolu non du ko may parce que Quench booy daal liggéey liggéey lu woo koŋ Lac Rose liggéey na may Quench Boy liggéey na lamb bi mënut yombee noonu si Lac te daa gëj a daa gëj a bëre gëj a am ndam te daa war a ñëw confirmer moom Lac Rose waaw li nga wax dëgg la dafa ndox moom Quench moo gën a compétir moo gën a compétir gën am mujj si terrain bi moom ki nga xam moo di Quench Boy tegale ay dynamite victoire 2009 la gëj a daanu lay laax ndeysaan diggante Quench ak Lac Rose diggante Quench ak Lac Rose ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan position bu amoon moo amaat diggante Lac Rose ak Quench ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan diggante Lac Rose ak Quench tànk bi mu jiital liggéey Quench tànk bi mu jiital moo seen Lac Rose moo tax bala moo ñëw si moom am si moom sa accès force waay da dugal na góos moom Quench mais cokkaas la laa ilaaha illallaah jàppante amagul jàppante loxo si bara lay laaxi la laa si Boy ak Lac Rose dugal góos duraat xeex raak góor bu daanu góor bu daanu ñoom ñaar ñi ngi xeex xeexu mbedd diggante Lac Rose ak Quench Lac jël na ko Quench bañ na Lac jël na ko Quench bañ na Lac Rose ngay dóor Lac Rose ngay dóor ñoom ñaar jàppante nañ ay bii combat amateur yi nag lii nañu soxla amateur yi lii nañu soxla diggante Lac Rose ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan ndeysaan diggante san Rose ak Quench diggante Lac ak Quench ñoom ñaar jàppante nañ ndeysaan laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Quench daan na ko Quench daan na Lac Rose jël bi amul benn werante Quench daan na Lac Rose jël bi amul benn werante laa ilaaha illallah ndam li mujjee ne dem Yoff waxoon naa leen fiix ci kanam ndam li faas la jëm wala yoof ci kanam dina leer ndam li mu nee na dem yoof ndeysaan Quench daan na ko jël ba amul benn werante xoolal ma lii rek. dëgg la dëgg la dëgg la kii di joxe baañ di joxe ay booñ kii di joxe taw bu ma ne seetlu kii bu dul xawla la jure ah, ni yàlla la yàlla fi ne yàlla fi ne kii bu dul barke dëgg joxe ay booñ kii am baax kii di baax kii daaw day sëgte wax neen toj dal sa neen toj sa ba wax kii ba jëtee doo xel lamb da ngay su xorom lamb bi amatul xorom da ngay suukar léegi lamb la lamb lamb la léegi lamb bi amatul xorom da ngay lamb mais tey ci combat bi xeex bi nga xamante tey Koye si def na ko ak Lac Rose te ñu bëri fa woon Lac Rose moo si xeex bi. non ñu bëri dañu waxoon ne mënul xeex. ñu bëri ne woon ñëwul. mais ku wet koo xam. non bëree bëree ngi si moom xeex ngi si moom. te dañuy gën a namaat loolu. incha allah waaw fu mu jëm. non non jarul yaakaar ni. ci kaw jarul yaakaar la ci Moussa Ndoye mën na neex. non ñoo ñoo bokk lébu gi. non bokk lébu waaw non loolu. maanaam bu la neex. non ñoo bokk waaw. coinsi coinsi. sonalu ko parce que dañuy ñu bëri dañu wax ne coinsi du xeex la tey lu mu def dafa xeex ak moom bëri ak moom mais nii la ma doon demee quoi waaw. waaw déggoo déggoo li la dama ne la combat bi ni mu ñaari combat yi passé dafa dafa gën si combat ñaari combat yi jàll si comme Quench dafa fexe si combat Quench yi bi bu ñu doon a ñàkk il faut mu métti te waaw. waaw mooy li ma wax rek. waaw mooy li ma wax rek xam nga neewoon naa la daa am yi yu mu génn sortie yu métti trop parce que nii la ci am a benn victoire pas ak décision arbitre kon nag ay supporters am dañoo naamoon wël bi gang te ku xam ku xam Quench xam ne wël bi gang si moom. mais tey Lam Sarr tey wane na boppam taxe daan Quench daan. non wane na li Lamsaat neen wane na boppam rek. ñëwati ngeen. ñëwati nañ waxoon naa la ñu ñoo aay ci